Balla ñu ñëw aussi ci li nga xamante ni rek euh, actualité la ci làmb ji muy diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne moom mooy euh, Tapha Tine euh, gis nañ keroog seen face to bi li nga xamante ni noonu la demee Eumeu Sène maanaam taakale na bu baax ki nga xamante ni moom mooy Tapha wan ko ni maa la mën maa la ëpp doole li ñi di wax gisuma ko ci yow loolu ban gis-gis nga ci am keroog diggante wala combat boobu. waaw xam nga ñaari mbër moom bu ñuy xas toujours rek li may wax ci bataille psychologique lay dugg mais dafa doon combat boo xam ne dafa dafa am importance ci ñaari mbër yëpp. muy tafaatin muy Eumeu Sène tey importance bi mu am ci tafaatin mooy tey tafaatin fi mu nekk nii ci làmb waru fi woon nekk mooy dafa li li mu li mu li mu ralentir ci làmb dafa bari parce que tey boo xoolee moom catégorie ñi mu war a làngool di bëreek ñoom ñëpp ku boo ci xoolee ku ci nekk la mos nga roi des arènes yéeg nga ba wàccaat di ko fekk si tey Eumeu bàyyi na ko fi dem ba ñëwaat dabaat ko Balla gay tamit demoon na ba ñëwaat dabaat ko keneen ak keneen ak keneen donc retard bi mu am ci làmb te Tapha ñu bëri dañuy séntu ci moom roi des arènes parce que boo ko xoolee rek da ngay da ngay gis ni jekk na ci roi des arènes du dëgg te mu am retard bu bëri muy bëre koo xam ne nag ndaanaanu làmb la tey Tapha fu mu toll ci làmb muy Eumeu Sène muy Balla Gaye muy ku muy bëreel ci ñooñu noonu waratul a déglu Tapha Tine waratul déglu kenn dafa war a ñëw ci géew bi bu ñëwee ci géew bi respect bi nag après lay daw mais période bii mu toll warul respecte benn mbër dafa war a ñëw sarax leen ndongo daara wala mu jël ak doolam parce que il est temps dafa mi ngi bëgg yàgg ci làmb te ba léegi gars yi ñëpp catégorie ñëpp presque ñëpp mos nañ ko moom mosagu ko kon nag combat bi mu jël c'est juste ko pour jël ko daan Eumeu pour confirmer ni objectif bi mu mu fixé wu dina ko entendre mais nag muy bëre koo xam ne wallaahi azim tafaatin rek moo ko dese ci ñi mu daanul ci làmb bu daanee tafaatin rek tëj na làmb muy Eumeu Sène kon loolu rek exemple la tey bu moom c'est le seul ku daan la dëgër daan na Gris daan na Balla Gaye ñaari yoon daan na Bombardier génération boo xoolee ba ci ay ñoom Euh, Souley Toba ak ñi fi bëreew mbay Mbaye Diouf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon bu daanee tafaatin rek mooy daanaka tëj na làmb ji. tafaatin moom la nga yaakaar ni tey moom rek lay génnee ko ci loo bi teg ko na le mais ñi ci des ñëpp mun na leen boole ci loo bi. tey ñu bëri jàpp nañ ni euh, maanaam fi mu fi mu àgg nii waroon na ko dépassé ndax am na euh, nekk xale la am na doole bi wala am na gabari bi mais dañoo gis ni Tapha Tine à chaque fois maanaam avancement am ci làmb comme ni nga ko waxee dafa xaw a retard loolu yow parce que combat test yi mu amoon yëpp pour mën a confirmer de pour mën a dem conquérir conquérir le titre de roi des arènes def ci échoué mook Balla yi def ci échoué mook euh, Ama Baldé daf ci échoué. tey combat yoo xam ne yooyu da ko doon daan pour confirmer posture am pour mën a attirer li nga xam ne mooy le titre roi des arènes ba pare parce que période yooyu noonu ku ci daanoon ki yor titre bi la waroon bëreel période bi muy bëreeg Balla Gaye bu daanoon Balla donc directement ki yor titre bi la waroon bëreel foofu dafa échec yooyu nag moo war a retard bi xëy na euh, ñàkk maturité la woon te at peut-être ñàkk encadrement bu baax mais tey ku xool tafaatin nu muy doxee xam ni maturité bu baax am na ko façon méthode d'entraînement am changé na am na lu mu gëmaat ci làmb te am na ñu ko wër ñoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah donc euh, li ci des rek mooy fixer ay objectifs et dem atteindre ko. tey Eumeu Sène su ma laajee la mooy secret am secret mooy maanaam ci wàllu âge ñu ngi fi lim ñu si bari moom moo leen gën a féete mag mais toujours boo ko gisee da ngay gis koo xamante ni comme entraînement physiquement ko am doole loolu lan la maanaam si wàllu waaw longévité moom ci sport foo ko gis ci nit bul chercher de midi à quatorze heures euh, hygiène de vie la xam sa bopp fonk entraînement bañ a pasar pasaree sa bopp ku xool longévité bi bi bi bi bi bi Eumeu Sène am donc mënoo ci rek lu dul félicité ko ci ba pare xale yi roy ci tey ñi mu nekkal ci làmb ji dañu war di roy ci Eumeu Sène am na ñoo xam ne fekk nañ ko ci làmb ji bàyyi ko fi benn ci man benn ci keneen ak keneen ak keneen ay Balla Gaye ay ñee ñeneen ak ñëpp ci làmb lañ ko fekk génération bi ngay gis nii yëpp a part Bombardier peut-être peut-être Bombardier sax ci làmb la ko fekk tey ba léegi nii booy daaxuñu ko bëre ëpp ñu ko doole gënuñu ko baax yaram kon hygiène de vie la un esprit sain dans un corps sain donc ku xool Eumeu Sène xam ni wax dëgg yàlla c'est un vrai sportif c'est un gentleman nit la boo xam ne wax dëgg yàlla euh, làmb mi ngi koy jox ak xam mu mat heure bu ñëwee ci làmb nga xam ne kii mbër ñë ñëw na donc loolu tamit lu ñuy saluer la te ñu jël ko exemple xale yi di roy ci moom. Mhm. tey boo amoon looy conseil ñaari mbër rek. waaw ñu xam ni ñoom ay mag lañ ñooy magu làmb ji ñu rafetal ko ah, def ci fulla def ci fayda honoré seen contrat sénégalais yi at amateurs yi leen di seetaan mën a kontaan vraiment ci ñoom parce que yàgg nañ ci làmb ji te seen combat waratul nekk combat yoo xam ne lu ñuy appréhender lay doon combat de choc la war doon te tafaatin du may Eumeu dara te Eumeu Sène bii ma gis du may tafaatin dara parce que boo xoolee forme état bi Eumeu Sène yor nii gëj na ko yor trop gëj na ko yor depuis ci premier combat am ak at comme premier combat am ak Balla tafaatin tamit forme bii mu yor mosuma gis mu yor ko xaw ma nag xaw ma lu nekk ci biir waaye boo ko xoolee physiquement da nga naan Tapha Tine mi il est prêt seen Sène tamit ku ko xool da nga naan kii dafa pare pour dem xare ji Badar du may ëmm du may Tapha dara te boo gisee ni ñu waxee ñoom ñaar defe naan ci géew ba du yomb de du yomb te mbër mu yeewu mooy bëri at mbër mu puissant Eumeu Sène no du question gën a puissant Eumeu Sène xam nga yeewu puissance mi ngi ci yeewu doole mi ngi ci intelligence nit mun na puissant nga jël puissance am yëpp multiplier ko at sa bos utiliser ko contre moom Eumeu foofu laay waxeek moom mun nga ñëw ak sa doole lépp mu jël sa doole utiliser ko at yow mooy tey tafaatin buy ñëw ci làmb ji tey du xeex rek lay indi na indi bëre bu wow koŋ mën na bëre mën na bëre mais ay ay réaction am ci biir géew mooy yéex waaw day réflexe am mooy yéex parce que Eumeu dafa nekk mbër boo xam ne dafa am euh, rapidité rapidité d'exécution bu dee cërëb mun xam na li muy def mais Tapha Tine day benn bennal moo tax keroog ci biir wax Tapha Tine ne ko yow bëre public ngay bëre mais man bëre bu wóor laay bëre kon Tapha am na fu mu teg làmb ji. Mhm. Mhm.